jërë ngeen jëf gannaaw bu nuyu le nouveau ministre suma xarit suma frère suma dëkkandoo ñaar yoon dëkkandoo ci table conseil des ministres parce que man ak mom ñoy feggoo waye dëkkandoo feulé fi nga xamné moi, la commune de Mbao une commune qui m'est chère monsieur le ministre je suis à nuyu yow ak sa Plateau di nuyu commune de Mbao di nuyu département de Pikine di nuyu waa et et département de Canel, di nuyu région de Matam ak la région du Sénégal damay tàmbali ci sant yàlla sant yàlla ci lim ma defal ak nim ma ko defale sant yàlla boobu may sant yàlla mooy ci baatu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin tay la am ñetti at ak sur la par la grâce de Dieu et par la volonté du président de la République qui pour le ministère de l'environnement et du développement durable depuis 2019 le président Dink ce ministère stratégique et transversal Mota. dama sant de ko de de ak engagement ak loyauté monsieur le président je suis monsieur le ministre ci diir bu gàtt jot nañu teg ay ministère de l'environnement et du développement durable jàpp naa ni am na lu je pars la tête haute waaye avec un esprit tranquille

di len balu àq ci lima teyul sama mission ñom ñoko ko yombal ci biir ministère de l'environnement monsieur le secrétaire général ma ngi lay chargé nga remercier ma personnel bi yépp suma mënon tay tey damay ku nekk ci ñom ma jox la loxo wax la ni maa ngi dem ci cant yàlla bu baax waaye maa ngi dem ci remercier leen ci xol bu sedd guy ci cadeau yi nga xam ne jox nañ ma ko léegi ñaari kaamil ci benn bés nit musuma ko defal ñaari kaamilul alquranil karim ci benn bés walla ci benn waxtu ñu jël jébbal ma ko awma seen pay yal na leen yàlla fayal boppam sant naa ñépp gërëm naa ñépp képp ku fi jël kàddu sant naa la gërëm naa la waaye mënuma sant gërëm aase walla lu doy la commune de Mon village Orkadiré qui m'a vu naître. Ce village de qui m'a adopté. Ouvre-moi. J'ai la responsabilité pour ma, bu la a ci commune bi ko sama Je ngi maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di feddali sama kóllëre ak yéen maa renouveler sama confiance waaye comme ni ma leen ko waxoon la mission continue nañu taxaw tem jàppale ki nga xam ne en 2008 moom moo ma taxoon a jóg pour jàppale ko mu jël réew mi yàlla dogal na ko maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax sama discours nag amul feneen fu ma ko mën a daanale yaakaar naa ne miin ngeen sama daaneelu discours yéen ñépp xam ngeen ko xam ngeen fi ma doon daanele te tey du doon exception fi may daanalee mooy li may wax man ak yàlla xam na xam naa moom xam na yàlla xam na xam naa te moom xam na tabaraka wa taala moo ñu wax ne wa ma shahidna illa bi ma alimna du ma seede mukk lu dul dëgg maa ngi seede ni soxna su baax laa am ku ma jàppale ci bépp fànn ku ma jàppale ci bépp fànn suma tumuraankewul ci jaar-jaar yi ma am ginaaw yàlla jàppaleem la maa ngi ñaanal suma ñaari wayjur ñi nga xam ne lépp ñoo ko def ci man suma papa moo ma dalal baa moo ma jàngal alquranil karim

ci man ku ma jàppale woon ci lépp lu may def yàlla na ko yàlla yërëm yërëm bépp mbooleem jullit maa ngi sant sama mbokk yépp mbokk deret ak mbokk dëkkandoo bàyyiwuma ci kenn ñoom ñépp maa ngi leen di sant ci taxawaay bi ñu am sama wet durant

nañu téyé téyé ngir yalla nañu téyé téyé ngir monsieur le ministre ma ngi lay wax sama disponibilité je suis mon wo dina teew ngir sa jëm waye ngir Sénégal biñu bok waye ngir ki nga xamné mo teg la ci bop ministère de l'environnement lepp lo xamné dencina ko ci expérience dencina ko ci walu xam-xam te nga soxla ko pour wéyal ministère ligéel ministère bi billahi alladhi la ilaha illa huwa soko soxla mu ngi sa loxo sa ndam mooy doon sama ndam sa ndam mooy doon ndamu président ndamu président mooy ndamu Sénégal ñun Sénégal rek moo ñu ñor sant naa yàlla santaat yàlla sant yàlla santaat yàlla sant yàlla santaat yàlla الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته